dalee nag jàmm mbokk internet yu seen njariñ TV li nga xam ne nag moom mooy conseil constitutionnel daal di nay jeexal deuxième tour bu parenage bi ñu nekk nag ay candidat jëm ci élection présidentielle yu atum 2024 fii ci Sénégal ci lu jëm ci cadre course à la présidentielle pour 2024 fi ci Sénégal ñaar fuk ak ben candidat nak daldi nañuy jall ak succès li nga xamné mom moy étape bu am solo jëm ci parrainage boobule. yooyu les candidats nag wane seen ak bopp ginnaaw nag jàppandal lukk li nga xam ne moom mooy doomu Sénégal yi le wante yi te ñu jógee ci diaspora bi ci noonee nag critères yi nga xam ne moom la ñu requérir jëm ci boobu lépp wàll ngir mën a conquérir rek loolee daal nañu koy def liste candidat yooyu nag bokk na ci Boubacar Camara Déthié Fall Cheikh Tidiane Dièye Daouda Ndiaye Karim Wade Habib Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba Rose Wardini Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mohamed Boun Abdallah Dionne El Hadj Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye El Hadj Mamadou Diawo di Mame Boye Diawo Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu Pastef ak ki nga xam ne Mon moyen Thierno Alassane Sall yooyu candidat nak lañu am jëm nak ci élection présidentielle yu atum 2024 fi ci Sénégal wante duñ ca yam nag faw ñu wax ci li nga xamné ne moy mooy ñi bokku ci yooyu élection présidentielle muy Rose Vardini, ak Anta Babacar Ngom Anta Babacar Ngom sax wax ndax dañ ci am ay révélation yo xamné ne xaru ko jëm ci diggante Macky la ak doomu Babacar Ngom boobule mu nekk candidat boo xam ne moom moo passé dofis ci conseil constitutionnel jëm ci parrainage citoyen yi ñu ne nak mom moy femme bu njëkk nek candidate mu passé ci étape bu parrainage yi mom Anta Babacar Ngom mu filé nak trois vers la chasse du suffrage des Sénégalais jëm nak ci élection présidentielle du février 2024 mu réussir nak exploit bi rawatina nak parrainage bi ginnaw ba mu amé ab total impressionnant bu 45238 cinq soutien yi nga xamné ne nañu mu ko jëlé ci fukki région fii ci Sénégal seulement nak passage bu euh, candidate bu bees boobule nit ñi dañ ko percevoir comme ab manigance bu régime bi bu ñu sukkandiko ci kàddu Aminata Touré ñu ne dossier mom Aminata Touré ñu invalidé ko par conseil constitutionnel mandataire bu Mimi Touré bi nak mom jommi la def ba tax ba ngay def ay révélation ci Anta Babacar Ngom mu nekk candidate te mu passé d'office ci état bu parrainage bu conseil constitutionnel bu ñu sukkandikoo ci siidi Bara Fall moom nee na Aminata Touré da koo dénk ay kàddu ne Anta Babacar Ngom tamit membre la woon ci cabinet bu directoire du campagne bu président Macky Sall en 2012 te it ki ko piloté woon moom Aminata Touré moom moom la nee nañu nag ay manigance yoo xam ne dañ ko orchestré ci contrôle parrainage bi yoo xam ne nag métti na leen loolu ndax politique ab cursus la ab vécu la mënuñu rek jog benn bés daal di am li mu am ñu wax ko nag Anta Babacar Ngom boobu tax neen nañu namu mu jàllee ci yooyu le parrainage yomb na loolu te it nag yéem na ñëpp ban ñu ci nekk nag am ci xel ñaar bu ñu sukkandikoo ci mandataire bu Mimi Touré boobu jëm nag ci li nga xam ne moom mooy parrainage yi ndax dañoo mën a jàpp ne Anta Babacar Ngom kat waa Bennoo Bokk Yaakaar seen 4 millions de parrain yi ñu doon wax ci lañu ko tibbal mu daal di dem yoonam ak lu mu ci mënta doon candidature am moom jàll na d'office ci li nga xam ne moom mooy conseil constitutionnel wante nit ñi ñu nga ciy am xel ñaar ndax lu tax ñu ciy am xel ñaar mooy ténor politique yi kat ñoom ñenn ñi rëkkale nañ leen ñeneen ñi jàll ci deuxième tour la waral nag moom donc dans de valider li nga candidature d'office du conseil constitutionnel dal de plus de 45 000 par